ci wàllum xarale gi jaawo jallo ginnaaw bu ñu sante buur yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi julli di sëlmal ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu wa sallam ñu ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala an yataqabbala minna wa minkum saalihu al wa kullu aamin wa antum bi xeyr naa di fàttali mbokk yi rekk des na suñu digganteeg tamxarit vingt-six tey mu doon fukki fan ak juróom ci weeru tabaski te mooy zilhijja arjumay tey ji moo nekk fukki fan ak juróom ci weeru tabaski xanaa tey ji démb arjuma moo doon fukki fan ak juróom lañ bëgg a wax waaw ci weeru tabaski waaw xanaa tey samdi ji moo war a nekk fukki fan ak juróom benn ñu di leen fàttali ne rek des na suñu digganteeg weeru tamxarit euh, vingt cinq jours vingt cinq jours ñaar fukki fan ak juróom moo des suñu digganteek tamxarit tamxarit boobu te mooy chahrullahil muharram mu tombeeg bésu ashura ñu ngi koy seen di digmal muy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp lañ fa jàmm yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi lépp lu ñu jaamu yàlla ci weer wi ak ci bis bi yal nañu ko buur yàlla nangul taxawaayu arafa yow ujaaju baytullahi al taxawee ak yow mi demul man wi demul keneen ki demul bérëb boobee koor baña wooroon bés ba ci juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski yal nañu ko buru yàlla nangu waaye lépp lu ñu tuur ci deretu mala keroog fukkeelu fan wi yal nañu ko yàlla nangul ñu di wax ne iidukum mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum saalihal a'maal yal nañu yàlla buur bi nangul mbooleem xeetu jëf yiw ba ñu jëf bés bi ak ci weer wi amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne am na loo xamante ne bu ko buru yàlla nattoo pencum jullit ñi bi léegi andil nañu saafara soo xamante ne loolu may lay saafara loolu mu teg suñu kaw kom nattu yéen a ngi fàttale ko am na jamono am na bés am na temps climat bu guus ba ñëw installé wu ci kaw askanu Sénégal ci lenn ci suñuy mbokk jullit ñi mu doon installation boo xamante ne walla mu doon climat ba ñëw installé ci coobare yàlla ci man-manam ak ci namelam <clears throat> mu nar faa jaarale message boo xamante ne kenn ku nekk ci kuréelu jullit ñi loolu moo war a nekk sa taxawaay ba tax na yaa fàttale fàttaliku suñu mbokk yooyu seytaane ñëw dugg seen biir mu daldi wëlbati lenn ci xol yi dënn yi tàng kenn ku nekk am la nga ëmbal sa moroom mu doon lu kenn mënut nettali waaye ci kàttanu yàlla ak ci mbaaxam ginnaaw si kilifa yi dox nañ ci tànku jàmm bi suñu jonn yàlla ji di tey kilifa yang si dox tànku jàmm yal na jàmm jooju gën sax yal na jàmm jooju law lépp lu ñu wax ci diggante ñaari kuréelu yooyu seen dënn tàng kenn ku nekk jëmale ko ci meneen kuréel ba ñay dox tànku jàmm yan na yàlla def seen kàddu mu doon ndox bu sedd guy buy seral tàngooru dënn yooyu amin ya rabbal alamin bokk na ci solution bi nga xamante ne alquranul karim buur yàlla tabaraka wa mu ñu koy yenkewal ci téere bi mu ne ñëw ca suratul nisa aya 114 buur bi tabaraka wa taala mu ngi wax ne ci suñu téere bu mag bi di alquranul karim ba yore ci kaw suuf si sénégalais yi di ko jàng di si gañe ay trophée yu bari xatta waa kër googu ñu di ko jëfandikoo ñu di si jëlee la nga xamante ne mooy xam-xam bu kenn dut naataable alquran woowu moom la yàlla buur bi tabaraka wa taala placé fa message ba nga xamante ne noonu la ñu war a régler suñu pencum julit ba tax na mune ne buur bi buur bi tabaraka wa taala ne yonent bi ci alquran ca suratu nisa audu billahi min alsheytaani arrajim laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna annaas wa man yafcal dalika ibtigaa mardati llah fa sawfa nuutiihi ajran cadiima mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot aaya bi buur bi yàlla tabaraka wa taala dafa am benn situation ba mu bëgg mu dàkk ci pincum jullit ñi lenn ci jullit ñi ñu di ko meloo buur yàlla bëgg melokaan boobu na dàkk bu du dàkk tamit buñ ko dut arrêté waaye condition ba mu placé ne nii laa bëgg bu ngeen di meloo melokaan ba ngeen di nekkee kon conditionnal dama leen conditionné ngeen nekkee ko nii ndax bu njëkk ba saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain daanoon nañu déyante kenn ku nekk di dee ci sa nopp morom kenn ku nekk di taxaw di ñaaroo ak sa morom buur yàlla mi dara umpalewut waaye yonent bi sallallahu alayhi wa daanoon na gis gaay ñi de saa yi ñu toogaan kenn ci ñoom ñaar kenn ci ñaari nit ñi keneen ki day yóotu gémmiñam taf ko ci noppu moromam mu di ci wax di ci ngunu-ngunu di wax ci suuf ci noppam léeg-léeg nga gis yeneen ñaari nit ñi taxawu jàkkarloo lañuy ñuy wax kenn du ko dégg la ñuy waxtaanee kenn du ko dégg ba di ko xam yàlla bëgg a dalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nekkinu saxaaba yooyu ñuy jikkoo jikkoo yiñ leen wax ni kii day yootu gémmiñam ba taf ko ci nopp ka ca des mu di ci wax léeg-léeg nga gis yeneen ñaari nit ñu taxaw la ñuy wax kenn du ko dégg lañuy wax kenn du ko xam yàlla ne seen nekkin boobu de bu du dàkk bu dee du ngeen ko bàyyi xam leen ne nekkin bi de li ma leen bëgg a wax ni bum ci ñàkk na ngeen ko ci boole moo tax yàlla ne la xayra fi kathirin min najwaahum yow yonent bi sa saxaaba yi ñaaroo yooyu ñuy faral di ñaaroo kenn ku nekk ci ñoom la muy dee moroomam ci lu bari amul benn yiw ji ci nekk lu dut illaa man amara bi sadaqatin waaw lu dut la yàlla bëgg wax nii bu dee loolu nekku ci xam leen ne déeyante bi ngeen di dee kenn ku nekk di dee moroomam walla kenn ku nekk di ñaaroo ak moroomam loolu ngeen nekkee lu gëna bari ci melokaan boobu yiw nekku ci waaw yiw nekku ci loolu loolu laa xayra fii kathirin min najwaahum lu gën a bari li ngeen di déyante yiw nekku ci lu bari taxawaay ba nga di taxawee kenn ku nekk jàkkarloo ak moroomam yàlla nee na lu ci gën a bari yiw nekku ci illa lu dut man amara ku digle bi sadaqatin sarax aw maarufin walla ku digle njekk aw islaahin bayna naas walla ku war jóg dox tànku jàmm ci diggante nit ñu juunoo yàlla buur bi nee na waman yafalu dalika ibtigaa mardatillah képp ku jëf-jëf ji sàkku ci rekk ngir sàkku ngir mànde yàlla yàlla ne fa sawfa nuutiihi ajran adiman kooku xel nañ kaa fay keroog bés pénc peyor bu mag mbokk yi bu ñu waree andi taaliqaat aw ñu war a hadis eh, aaya bi wala ñu war ko war a mën a firi waxtu bi duñu doy waaye ñu doyloo ci li nga xamante ne yàlla buur bi tabaraka wax na ko yonent bi ci aaya bi mu fassiruna yi firee aaya bi ne la yàlla jublu ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci aaya bi ay laa am na loo xamante ne nekkul ci njëriñ laa tafau fi kathirin min alkalaami nnaasu sirran fi ma baynahum amul njëriñ nekku ci njëriñ nekkut ci lu bari la nit ñi di waxtaanee ci suuf sin biir yàlla ne illaa ida kaana xadiisan lu dut waxtaan ba nga xamante ne day nekk daaiyan ilal bazalil maaruuf ngay woo sa moroom di ko xemmem loo di ko xërtal mu wara nekk kuy tasaare njekk mina sadaqaat ci lii jëm ci génnee sarax ba muy dimbali ku mu tene aw kalimatan tayiba walla mu nekk wax rafet wax ju neex aw tawfiqin bayna naas walla yéwénal jàppandalal diggante nit ñi nga xamante ne gis nga ne seen diggante neexul ñoo ñu de képp ku taxawee waxtaanu suuf waxtaanu déyante képp koo xamante ne liñ la wax nii digle njekk woote ci jàmm wax ju teey walla nara dox diggante bu ñagas ngir yéwénal ko képp kuy dox lii ci suuf ah yàlla nee na kooku mooy ku ñu war a fay bu mag moo tax mu fassiruna yi ñu kontine ñu ne wa man yafalu tilka al umuru talaban ridallahi taala képp ku jëf-jëf bi ni mel nga namm ci rekk ngir ngërmande yàlla buur bu kowe bi raajiyan sawaabuhu nga xemmem peyoor bay tukkee ko fa sa defuloo ko ngir askan wi di ko waxtaane defuloo ko ngir nit ñi ñuy gis ko waaye defoo ko ngir nit ñi xam ko lan la tax nga di ko def banka daan def lii ci jubluwaay mooy sàkku ngir mànde yàlla mu fassiruuna ñu ne fa sawfa nuutiihi sawaaban jazilan waasian kooku de yàlla dina ko fay peyor bu mat te peyor bu yaatu loolu mooy la nga xamante ne mooy tafsiru sarxa aaya bi moo ne képp ku nekk di wax ci suuf am na critère ya yàlla ne na ko yii sabab képp ku nekk di déeyante sa moroom ci nopp walla ngeen ñaaroo di wax waxtaanu suuf yàlla nee na li ma la bëgg a wax ni na ci nekk moo tax mu ne laa xayra fi kathirin min najwaahum lu gën a bari la gaay di déeyante seeni nopp lu gën a bari li gaay di taxawee ñuy ñaaroo di waxtaanu waxtaanu suuf lu ci gën a bëri yiwu nekku ci lu dul illa man amara bi sadaqatin lu dul ki digle sarax gis nga suñu dëkkandoor wii ñu dëkkal taayi gis naa ne cin tàkkul këram moo ne lu tee nga andi cinquante mille ma andi cinquante mille muy cent mille ñu defal ko achat jëndal ko dund bu doy jébbal ko ko bu dee waxtaanu suuf wa ngeen di waxtaanee yéen jullit ñi lii bokk na ci yàlla nee na bëgg naa waaw waxtaanu suuf ya ngeen di waxtaane kenn ku nekk di xememloo moroomam dimbali mbokk bu ngeen tane ngeen boole ko ci yàlla nee na ñaaroo boobu ngeen di waxtaanee ci suuf bëgg naa waxtaan boobu valide naa ko déeyante ya ngeen di déeyante kenn ku nekk di yoot noppam ci gémmiñu morom ba na ngeen xam ne pour ma valider ko il faut ngeen xemmem loo kenn ku nekk ci yeen ñaar sarax ba ngeen di jëmale ci mbokk bu télé walla bu fekkente ne nekkuleen di xemmem loo kenn ku nekk ci yenn ñaar bu dee du ngeen xërtalante ci génnee sarax na ngeen doon kuy xërtalante ci maaruuf moo tax mu ne aw maaruufin na kenn ku nekk ci yenn ñaar xërtal moromam ci jëf njekk waaw moo tax aaya bi aw maaruufin walla ngeen di xemmem loo wante jëf ci njekk jëf ci taraanga waaw ngay xërtal sa mbokk ci lu baax moom mu di la xërtal ci lu baax yàlla ne bu fekke ne ñaaroo ba ngeen di ñaaroo waxtaanu suuf ba ngeen di waxtaanee bu dee lii mu ngi ci bëgg naa kon nga déggee ci ne bu dee yii bokkuñu ci yàlla nee na bëggul bëggul ñaaroo bi ni mel waaw ñaaroo bu dul mën a ñàkk déeyante bu dul mën a ñàkk yàlla nee na na ngeen ci boole temu génnee sarax jëmale ko ci ki ngeen tane walla ngeen boole ci tem njekk ba ngeen di jëmale kenn ci askan bi koo xamante ne yéen ko tane ci taxawaay yàlla ba léegi muy continuer mu ne aw islaahin bayna naas walla ngeen yéwénal diggante nit ñi ci déyante boobu ngeen di déyante nangeen ci boole xool ñaari jullit yu tongoo diggante ñaari jullit ba seytaane dugg ba xaw cee ferenkulaayu ba duñu tuddante duñu laalewante walla bu ñuy laalante deret dina tuuru na ngeen sol seeni dàll dem dox diggante boobu tem boobu na ngeen ko boole ci waxtaanu suuf ya ngeen di déyante waaw bu dee déyanti du ñàkk taxawaayu ñaaroo bi du ñàkk waxtaanu suuf du ñàkk na ngeen ci boole sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna naas ñetti temi daal na ngeen fexe ba ñetti tem yi yàlla jukki mu placé ko ci ñooñu di déyante walla ñooñu di ñaaroo ñuy waxtaane waxtaanu suuf yàlla ne seen waxtaanu suuf soosu génne sarax na bokk ci tem bi jëf njekk na bokk ci tem bi walla islaax bayna naas na bokk ci tem bi waaw yàlla nee na képp ku def benn ci ñetti ñi walla képp ku remplir ñetti conditions yi génnee sarax walla jëf njekk walla yéwénal diggante ñaari nit ñu juunoo yàlla ne képp ku def ñett yi walla képp ku def benn ci ñett yi te boo ko doon def lala ko tax a defloo la doon sa yéene mooy ibtigaa mardatillah faggu ngirmande yàlla don nga tax nga di ko def ah yàlla ne fa sawfa nuutiihi ajran aziman kooku lañu xel se fay peyor bu mag bu yàlla ne peyor bu mag nag xelu doomu aadama ak imagination doomu aadama lottu na mu di ko xalaat ndax loolu mooy lu mag bi léegi mbokkoo ci diine mbokkoo ci islaam mbokkoo ci pas-pas buur yàlla moo ñu ko ràbbalal moo ko installel ci suratul xujuraat ba tax na buur yàlla tabaraka wa taala ca suratul xujuraat ci aya dix fukkeelu aaya borom bi tabaraka mu ngi wax yonent bi ci suñu téere bu mag bi ne ko innama almuminuuna ixwatun fa aslixuu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turhamuun mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak njaboot buur yàlla tabaraka wa taala mooy baaxee yonent bi ci suñu téere bu mag bi di alquraanul karim mbokkoo ba woyu gom yàlla yi war a ba woyu gom yàlla yi war a ci pinc bi ba tax na ne innamal muminuuna ixwatun la fi nekk daal la wérte wóor mooy way gom yàlla ñi ñépp ay mbokk lañu kon bu dee yàlla nee na way yàlla yi ay mbokk lañu mu daldi di ñu avertir mbokkoo bi nuñ koy sàmmee nuñ koy ñoŋalee ba tax na mu ne ñu fa aslihu bayna axawaykum ngalla waay na ngeen rafetal mbokkoo woowu ngalawaay na ngeen def lépp luy ñoŋal mbokkoo boobu ba tax na bu kenn wax luy xajamal mbokkoo boobu yàlla ne na ngeen ko rafetal bu kenn jëf lay xajamal mbokkoo boobu noonu yàlla ne na ngeen ko rafetal bu fi kenn andi lay xajamal mbokkoo boobu yàlla ne na ngeen ko rafetal kon ndegem yàlla moo ñu sant ne nangeen rafetal mbokkoo woowu kon kenn warul def la tax mbokkoo bi di xajam kenn warul wax kàddu joo xamante ne day xajamal mbokkoo bi kon mbokkoo ba yàlla ne na ngeen ko rafetal xuwa ba yàlla ne na ngeen ci def islaax ba tax na mun nañu fa aslihu na nangeen rafetal bayna axawaykum seen diggante mbokk yi na ngeen rafetal mbokkoo boobu man na man leen ba tax ma ne leen way gëm yàlla ñépp ay mbokk lañ kon na ngeen rafetal mbokkoo boobu yàlla ne su ko defee bu ngeen ci toftalee ragal yàlla ci mbokkoo boobu yàlla dina leen dottil yërmande kon rafetal mbokkoo ba yàlla installe diggante woy gëm yàlla ñi day doon sabab yàlla sëmbëxtal ñu yërmande ba tukkee ko fa moom kon ndekete ragal yàlla ci mbokkoo boobu yàlla ne woy gëm yàlla yi ay mbokk lañu ragal yàlla boobu day doon sabab yàlla sëmbëxtal ñu yërmande ba tukkee ko fa moom kon bu dee innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum wattaqullaha laallakum turhamuun bu dee loolu mooy tax ñu am yërmande ba tukkeekoo fa yàlla kon nañ leen xam ne way yàlla ñi ñëpp ay mbokk lañu te mbokk boobu yàlla daf ñu avertir nee nañu fa aslihu bayna axwaykum na ngeen rafetal mbokkoo bi wattaqullaha ngeen ragal yàlla ci rafetal bi ngeen ragal yàlla ci mbokkoo bi ci jëmmam laallakum turhamuun bu ngeen ko defee yàlla dina leen dottil la nga xamante ne mooy yërmande ba tukkee fa moom yàlla buur bi tabaraka wa mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu bi ñu àndil leen xadiisu abi darda radiallahu anhu an abi darda radiallahu anhu jëlee nañ xadiis bi ci abi darda yan na ko buur yàlla gërëm nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent bi di ar rasul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu ala axbirukum bi afdali min darajatin siyaami wa salaati wa sadaqa abi darda nee na yonentu bi salaa sallam daf ñu ne bés moo ne du ngeen ñëw ma xebaare leen li gën daraja koor moo ne du ngeen ñëw ma wax leen lu gën darajaay julli ak darajaay génnee azaka xaalu bala ñépp ne aha kañ yonent bi wax ñu ko bëgg nañ kaa xam de qaal yonent bi nee na zaata bayn ngeen yéwénal diggante ñaar nit yu juunoo wa fasaadu zaata bayin xaalixatu ngeen defar diggante ñaar ñi nga xamante ne dañoo bëgg yàqul yàqu batax tax dara munut meññ seen diggante ci lu yiw bu ngeen gisee diggante bi nga xamante ne dafa yàqu ba dara mënu faa meññ ci lu yiw sol seen dàll ngeen dem defar diggante boobu loolu gën darajay koor moo gën darajay julli te moo gën darajay a génne sarax kon yow mi bëgg a woor te mënoo woor yow mi bëgg a julli te mënoo respecté waxtu yu julli yow mi bëgg a génnee sarax te amoo lu la doy bay génnee sarax yonent bi xaalil na la fi benn raccourci yoon bu gaawa a gaaw a gaaw pour nga am darajay koor ak darajay julli ak darajay génnee sarax raccourci bi mooy wan raccourci yoon bu gàtt boobu mooy ban yoon bu gaaw mooy bàyyil xel diggante bu ñagas danga dégg diggante paate ak yoro walla sàmba ak demba de duñu tuddante dañu laale duñu wax nga sol sa dàll def say manière bu dee kenn ci ñoom ñaar day jëfandikoo warga nga jënd warga bu doy ataaya bu doy ak suukar nga boole ci lang ci war a boole nga yóbbul ko ki nga xamante ne kooku nga njortu ne du laaleeg mbokkam nga dem ci moom ngeen daal jëfandikoo la nga xamante ne mooy teraanga jooju su ko defee waxtaan bi daal di jib ngeen daal di sol seen daal defar diggante boobu mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegsi fu ñu war a yëkkati jotaay bi nara a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan ñu di leen ñaanal yàlla suñu borom yal nañu yàlla may digg ak topp ñi ñaan yàlla suñu boroom an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulaata umurina